salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy suivre en diffé à travers les différentes plateformes yi nga xamante ni tey yaakaar naa ne moom ah, yaakaar naa ne ah ñëpp tey ngi fii nii teew rek si remise xamante ni tey yaakaar naa ne moom la Bogal production di amal tey di ko amal nag ak ki nga xamante ni rek moo di Moustapha Kane yaakaar naa ne ma ko waxee rek nekk développement dëkk fii si parcelle. ah borom mouvement bi nga xamante ni te yaakaar naa ne Sénégal yëpp am na eh, am nañ ci wàll parce que yaakaar naa ne Sénégal en marche la ñu wax kon nag na ñëpp marche ah na ñëpp dox jëm si kanam waaye si Boguel production laa njëkkee rek Boguel maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Bokar ñoo ngi lay fay di la ziar di la bëgg bu baax duñ nuyu waa Sénégal ñëpp di nuyu surtout waa Parcelles rawatina waa 25 fu ma dëkk di nuyu suñu garaam yi toog fii Moustapha Kane

pare tamit om politique la moo ngi béy waaram bu baax waaw boo déggee Sénégal en marche moom loolu moom mooy Sénégal ci kanam waaw moo tax euh, ñu tuddee ko suñu drapeau mu nekk om bu fiable daal koo xamante ne day bay waaram ci goxam waaw loolu moo tax ñu tuddee ko suñu drapeau. mu war a nekk jour fête war a nekk jour mbégte nga siy sargal nag kilifa bu mag waaye yaakaar naa ne jour si moom ni ma ko waxee rek comme que ay alpulaar ñoo organisé yaakaar naa ne bés ba dina ala ma incha allah. waaw bés boobu moom du yomb moom. dina nekk bés bu garaaw. plein de surprise. plein de surprise waaw. incha allah kon yaakaar naa dañuy ñëw rek si parrain bi ki nga xamante ni moo di Moustapha Kane man ni ma ko waxee rek euh, li ma gën a marqué ci moom mooy maanaam oyof ak disponibilité parce que yaakaar naa ay yoon yoon gis naa ko open press ba des mu ñëw foofu noonu te yaakaar naa loolu tamit euh, rawatina ñun ñuy liggéey si média yi des fois yéen yu ndaw ngeen koy def mais ñun lu rëy lay nekk si ñun parce que dañ ciy bàyyi xel yaakaar naa ne depuis loolu maanaam mu nekk lu ma frappé waaye avant Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen dalal fii ci Parcelles Assainies di rafetlu seen teewaay di rafetlu aussi ni ngeen accompagner Bougel Production di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu waa Parcelles Assainies ak waa Sénégal gi yëpp waaye tamit di nuyu waa lu làmb waaye tamit di jël nuyoo bu mag di ko jox waa Sénégal en marché ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu waaye tamit ñu ngi nuyu suñu rakk ji di abu mi nga xam ne moom moo jël honneur bi daal di ñu koy jox wax dëgg yàlla doon nañu jàppale suñu ay rakk mbër suñu ay frère fii ci Parcelles Assainies waaye yàlla dafa def euh, mu tey mu jël première édition bii muy tëgg nii di làmb ju mag mu jël ko am yaakaar ci ñun daal di ñu koy tuddee loolu nag ñun ñu ngi ciy am fierté di ci kontaan ndaxte suñu culture la nekk benn facteur benn vecteur bu mën a capter énergie bu nga xam ne jeunesse bi moom la demee ndax gis nañu làmb solo gi am ci réew mi di luy doxal économie loo xam ne tamit culture la mais tamit euh, sport la di suñu sport national ñu am ci kontante am ci fierté am ci honneur bu mag wax dëgg yàlla ñu nangul ko ko ak yéene ak aussi fas yéene ànd ceeg moom ci lépp ba bés bi ñu yegg ci ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin pour ñi euh, la di doomu parcelle Assainies boo xam ne maa ngi juddoo ci diggante Parcelles Assainies ak gox bi ñu naan Grand Médine te ñu yaroo fa màggee fa defee fa suñu primaire ci école unité cinq daal di jàngee Ibrahima Thiaw bi ñu fa jugee daal di dem une année Blaise Diagne. daal di amee suñu bac fii di Madipso nekk doomu parcelle Assainies yëngu ci sport yëngu ci aussi ci mouvement associatif ndaxte ba ñuy am vingt cinq ans bu fekk na ñu ñuy proposer pour nekk président ASC bu suñu gox bii ñu dëkk di unité vingt di unité quinze waaye tamit euh, ci wàllu liggéey aussi ñu nekk ingénieur géomètre di liggéeyee bërëb bi ñu naan cadastre mm-hmm. wax dëgg yàlla ñuy ñoo xam ne tamit euh, doomu gox bi lañ mm-hmm. yëngatu ci aussi ci wàllu développement yëngatu ci wàllu formation des jeunes mm-hmm. yëngu ci formation des femmes yëngu ci accompagnement insertion vraiment bu jeunes yi mais aussi accompagnement des femmes nekk loo xam ne lu ñu ñor la dans le cadre de Sénégal en marché ñu nekk di ko doxal ci loo xam ne Sénégal rek moo ñu ñor développement socio-économique gu Sénégal rek moo ñu ñor vraiment tey loolu mu nekk une fierté ñun en tant que doomu gox bi état du Sénégal ak Sénégal jox ñu tout un patrimoine immatériel boobu nag dañuy am yéene di ko delloowaat suñu réew. en tant ko waxee rek nekk développement waaye ñu gis jeunes yi si àdduna dafa fas yéene jàppale làmb ngir gën ko ñëwaat. waaw ñun vraiment euh, technocratie technocrate lañ gën a euh, jox xoo xëcc fa suñu bopp. terewul tamit euh, bu ay joute électorale amoon ñu gis ne war nañ cee mën a am luñ ci participer dinañ ci participer waaye ñun ci développement la ñu gën a féete ci développement ak aussi liggéeyal réew mi ci la ñu taxaw en tant que cadre supérieur ci lépp loo xam ne mooy doxal fa nga xam ne moom la ñu wóolu dénk ko ci suñu wàllu liggéey ñu nekk di ko doxal waaye loo xam ne suñu temps libre buñ ko amee dañ koy delloo suñu askan jox ko suñu ay xarit suñu ay amis d'enfance jox ko suñu famille jox ko aussi suñu gox jox ko tamit suñu réew ci cadre boobu la Sénégal en marché daal di juddoo ñu xam ni tey état daf ñoo accompagner ba ñu yegg fii ñun tamit à notre tour ca la ñu mën ak ca la ñu xam ñu ànd ci accompagner li nga xam ne moom mooy la population parcelloise d'abord ndax bay sawewu tànk waaye aussi Sénégal gi yëpp am nañ fa ay visée ak ay objectifs sur le plan développement. macha allah am na solo jour yi nag war a nekk le 3 décembre incha allahu rabi xam na ne ku ne xam na ne jël Belende moom sa waay la waaye am naa yaakaar ne Moustapha Kane moom dina am nu mu def ak dina am mu a impartial tuuti. Mhm. ngi xaar si Moustapha Kane. dëgg la ndaxte ñu ngi remercier d'abord suñu rakk ji Abu. Mhm. ñu yaakaar trop ci moom. Mhm. Euh, di xamal ni làmb ji dañ cee am ñaari cër muy cër boo xam ne ñi ko séq muy promoteur bi dafa nekk suñu rakk euh, papaam ak suma papa amoon lu ñu séq mu nekk papaam nekk suñu chef de quartier ñu koy nuyu au passage waaye tamit euh, Blindé dafa nekk sama rakk ku xam Blindé xam ko ak Moustapha Kane waaye tamit euh, ci làmb ji Euh, keroog rek loolu laay wax ak Blindé ma ne ko wax dëgg yàlla ku ma xam xam ma ak euh, yow waaye tey sa adversaire dafa am cër ci man ndax dafa am cër boo xam ne dañ ma ko jox ñu ci waxtaan ma koy tooñ waaye nag vraiment ku baax la et puis tamit mu digal ma lu baax ci adversaire am ne xam ne tamit ñoom ñëpp li ñu war ci ñoom tamit dinañ ko def jàppale leen ci li ñu mën mais si jàppale suñu rakk ba bés bi nekk bés bu réussir dans tous les domaines sur le plan organisationnel vraiment mu am une organisation euh, bu réussir vraiment te tamit euh, mu nekk bés boo xam ne tamit ñuy xamal waa parcelle seen bés la waaw buñ ci des ginnaaw euh, parce que parcelle dafa am lu ñu yàlla defal d'abord ñu ciy woo le maire des Parcelles Assainies di Babacar Jamil Sané waaye tamit dafa am lu ñu teraanga bu ñu Sénégal defal muy ni le premier ministre doomu parcelle Assainies la di suñu grand frère ñu ko ci woo di di ko xamal ni cëram la waaye aussi suñu député di El Hadj kebe di suñu grand frère ñu am ay rapport yu rafet ak moom ñu koy xamal ne tamit euh, lii moom suñu bésam la ñu ko ci ñaan mu ñu ñëw ànd ak ñun ñu accompagner suñu rakk ji nga xam ni làmb ji làmb parcelle Assainies la mm-hmm. ndax euh, dafa am mbëru parcelle bu ciy bëre waaye tamit ki ko tëgg aussi doomu parcelle Assainies la di un entrepreneur mm-hmm. vraiment mënoon a defi leneen mm-hmm. mais mu gis ne sport bi vecteur de développement la mu dugal ci loxoom def ci alalam yéene ko wat doomu parcelle bii di Moustapha Kane moo tax euh, ñu ciy woowaa parcelle yëpp di ci dooree nag suñuy ami d'enfance ñi nga xam ne ñoo dëkk Grand Médine ak ñi dëkk parcelle Assainies waaye aussi duñ ci fàtte aussi suñu frère le président Ousmane Diagne bu Sénégal en marche moom su ma ko waxee waxaale naa ñëpp waaye aussi làmbu jigéen ñi la euh, soxna Ndeye Kandji na ci dugal jigéen yi mu bokkal Sénégal en marche yëpp waaye aussi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci parcelle Assainies ñëpp actrice de développement yi Euh, les adjointes au maire tout les femmes daal leader ci la ñu bokk waaye nag bés bi moom bésu parcelle la te ñu ciy woo Sénégal yëpp di ci woo ñi nga xam ne ñooy nitu Moustapha Kane di ci woo aussi xamee Moustapha Kane di ci woo Sénégal yëpp ndax ñu nekk parce que affiche bu neex lañ teg ndaxte Nguer ku ko xam-xam ni bërekat la te du dellu ginnaaw waaye tamit Blindé moom sama rakk ji sama xarit bi waaw nekk vraiment sportif nekk jàmbaar moom kay dañuy féliciter Abou ndax lim ko mën a utal adversaire ndax gars yi daw bari nañ waaye nag euh, vraiment euh, nii la te gis nañ bërki démb ndam bi mu amal Sénégal fële ca Afrique du Sud vraiment mu nekk loo xam ne lu ñuy rafetlu la vraiment daal làmb ji daal làmb ñëpp la ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn kon nag na ñëpp ñëw dooleel ki nga xamante ni tey rek moo di Bogal production ni ñu koy waxee rek tey Bawol Bawol yi moo du ànta a naa ne am nañ promoteur Pikine Géejawaay waaye Parcelles yaakaar naa ne ah, am nañ promoteur bu bees boo xamante ni tey ko dooleelee yaakaar naa ne dina le chômage des lutteurs rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo dëkk Parcelles pour Moustapha Kane li ngay tàggatoo rek waaw li may tàggatoo aussi mooy axlu làmb Parcelles Assainies mm-hmm. d'abord euh, ki nga xam ne ñun dañ koy ndamoo di ko sagoo di le roi des arènes Modou mm-hmm. ñu ngi ko ci woo vraiment notre frère Papa Sow ñu ngi ko ciy woo. waaye aussi notre frère Khadim Gadiaga ñu ngi ko ciy woo. di ci woo aussi Mansour Ba. le grand promoteur. vraiment di ci wax aussi yeneen mbëru parcelles yëpp. ñu ngi nañ leen jàppale suñu frère bi waa Boguel production. mais aussi jàppale suñu mbër. blindé mais aussi ñu soutenir aussi son adversaire euh, di Nguer bu Zap mais ñu ngi woo tamit aussi. ñu waajal aussi bésu Tapha Mbeur am na combat. moo gàmmu gay moo gàmmu gay di combat bu. am am am tour waaw na ci ñëpp jàpp. Mm-hmm. ñu jàppale suñu ay doom. ngir ñu am ndam. loolu nag yàqul dara nag li ñu nekk parrain. Mm-hmm. ndaxte taxaw bu ñu war a taxaw aussi dinañ ko euh, taxaw. vraiment pour euh, pour ñëpp pour que bés bi daal. ñu xam ni ku gañe daal. Mm-hmm. sa jëf ak sa góorgóorlu. moo la fa may ndam waaye taxaw bi ñu war taxaw suñu doom it ak mm. suñu rakk nañ ko def incha allah incha allah rabbi te tamit euh, bëggoon naa tamit remercier waa presse bi mm-hmm. vraiment surtout cette presse en ligne là mm-hmm. vraiment gis nañ seen taxawaay te ñu ngi leen di encourager ñu ngi leen di wax ne tamit yéen it sa bés bi seen bés la vraiment te tamit di woo aussi tamit euh, sponsors yi mm-hmm. ñu jàpp ci combat xale yi surtout promoteurs yi parce que affiche yu neex lañ leen di indil na ci ñëpp jàpp te combat bi vraiment ku fa ñëw sa produit vraiment dina jar vraiment waaw di sant waa Boguel rek sama dëkk di leen sant bu baax di leen wax ni nañ ci jàpp mm-hmm. ñoo ciy jàpp sax mais nañ ciy gën a jàpp mm-hmm. di woo aussi waa parcelle waaw di ci woo ñëpp comme nu ko ganaar bi waxee rek ñoo ngi woo ñoo Modou Lo mm-hmm. ak suñuy grand Papa Sow ak euh, grand Mansour Ba aussi ñoo ngi ko si woo bu baax. Mhm. ñu jàpp si ak Père baax ñoo ngi ko si woo bu baax. Mhm. ñoo ngi sant daal ñëpp di gërëm ñëpp di leen gërëm yéen ñi tamit. Mhm. waaye heure bu ma leen soxlaa rek. da di ñëw. di kontaan si yéen bu baax. waaw wasalaam. kon ñoo lay jaajëfal. ok ñoo leen di fay bu baax. di wàccee tuuti. après ñu joxante c'est du combat. Moussa Fall boo génnee